asalaamaaleykum mbokk yi ñu sant yàlla borom asamaan ak suuf moom mi am yitte si ñun ba sàkk ñu bind ñu indi ñu fii si kaw suuf sant ko si xéewal yi mu defal yépp bokk na si xéewal yooyu ñu am jotaay bi di yitte ak njariñ ngir saytu lépp lu ñu yitteel ñun doomu aadama yi ñun askanu Sénégal ak lan mooy sunu njariñ fan la sunu njariñ ne loolu dafa tënk dund doomu aadama ndax doomu aadama moom daa am ay yitte dafa am yu ko soxal yoo xam ne si xëy di si gont di si dem di si ñëw di si yéeg di si wàcc te doomu aadama njariñ moom moo tax muy def li muy def kon nag yitte ak njariñ ngir saytu lan mooy sunu lan mooy li ñu soxal ak it nan la ñuy fexee ba lenn lu ne ñu mën see ama njariñ bés bu ne nag dañ fiy dale li gan yoo xam ni ñoom dañuy ñëw ngir loolu ñu yëy si yàbbi tey ñu ngi si ànd ak El Hadj Yoroba El Yoroba moom moo jiitee kuréel googu nga xam ni ay doomi Sénégal lañ waaye Italie lañ newoon mbas mi fekk leen fii ci Ndakaaru ñu càng fi ànd si tamit ak Mamadou Gadjigo Mamadou Gadjigo moom artist la pentre la euh, ñëwit di ñu indil ay yitteem ak lu ñu jariñ euh, El Hadj Yoroba di la nuyu di la daal la ziar. maa ngi lay fay Tunkara ci invitation bi. donc comme ni nga ko waxee man may El Hadj Yoroba coordonnateur u immigré sénégalais yi nekk Italie ñëw fii bloqué woon fi ci mbas bi. jërëjëf euh, Mamadou Gadjigo di la nuyu la dalal ziar. Ah, di la sant euh, Mouhamed Tounkara di la gërëm ci sa émission yitteel bi yitte moom a tax a jóg moo di mooy loo xamante ne lii luy soqali Sénégal te luy fu ñu mënta wax ne luy soqali Sénégal artiste pentre de pétavin bokk na ci. Euh, El Yoroba. Euh, seen kuréel gi depuis kañ la. alors kuréel gi ñu ngi ko taxawal depuis le 27 mars. moom yàggul. waaw yàggul léegi def na kame même au moins euh, demi. léegi yéen euh, kuréel gi. doomi Sénégal ngeen yoo xam ni Italie ngeen nekk di fa daan doole. ñëwoon tukki. seet si seen i njoñ. ñëw mbas mi fekk leen fii. ñu tëj frontières yi avion dematul dem ak ñëw bi jafe. Mhm. léegi ngeen càng fi. Mhm. ñaata ngeen. alors fi may wax yow nii actuellement ni collectif bi enrôlé nañu 2000 personnes. ñaari junniy nit. ñaari junni te des na parce que. Uh-huh. tendance yi ñu am moom dinañ dem ci mille personnes ndax ñu bëri yëguñu woon information bi mais laa ñu ngi commencé di manifester wu. léegi euh, ñooñu ñu ngi si biir Sénégal ñëpp. waaw ñoom ñoom ñu ngi ci 14 régions yu Sénégal yëpp. léegi euh, bi ngeen ñëweek léegi. Mm-hmm. mbas mi tàmmalee. Mm-hmm. Sénégal am euh, Italie fa la tàmbalee te gis nañu Italie nu mu fa jollee. Sénégal it am ko. léegi yéen lan ngeen bëgg. alors comme ni nga wax expliqué léegi-léegi pratiquement sénégalais yi nekk ci diaspora bi particulièrement ñu nekk Italie dañoo baaxoo à chaque fois su ay vacances fin d'année jot yu ñëw seet si njaboot yi. donc loolu moo ñu indi woon première vague bi ñu ngi ñëwoon mois de décembre janvier. Mhm. boo fekk même feebar bi amagul. donc ñi ci des tamit ñëw successivement janvier ba février ba début mars bi. donc dañu waroon ñëw def fi ay un mois deux mois delluwaat dem waat far situation bi am. Hmm. lii nag ndogalu yàlla dañ koy nangu ñun ñëpp. waaye nag bi situation bi amee tamit état yëpp dañ jël seen disposition état yi ci monde bi pour mën a rapatrier seen ñi ñooñ parce que ñu ci bëri ay liggéeykat lañu. donc en l'instar euh, de de l'Italie Sénégal tamit mu ngi koy def di rapatrier ay ñooñam mais ñun suñu cas dafa xaw a ndax ñun ay contrat de travail jàmbur lañ bàyyi donc ñu meen ñu juste congé pour ñëw seeti famille delluwaat léegi li am mooy. état yi dañu organiser ce qu'on appelle ay vols spéciaux ndax vols commerciaux yi ñoo taxaw mais vols spéciaux yi moom ñu ngi dem donc kuy suivre actualité bi da gis ne Air France mois de avril bi rek def na ci cinq vols donc actuellement vols yaa ngi dem. fii Sénégal waaw. Mhm. Italie organisé na benn mais benn bi mu organisé c'était trois 3 avril te boobu tubaab yi la ko defaloon parce que ñoom dañ ni seeni immigré tubaab yi woon vacances fii ci hôtel yi ñoom la ñu vol. Mhm. ci ñun tamit am na ñu ci am double nationalité ku mel ni donc ñun bi ñu yëgloo ñu ne leen non vol bi ngeen di def nii bëgg a rapatrier uniquement les touristes italiens du yoon parce que amul rek touristes yi am nañ yeneen sénégalais yoo xam ne ils laa dem parce que du ma ah, dem dali hôtel waaw ah, nga voilà mais ñu bëggoon a lever ak ñoom que xamal leen ni que tubaab bi ñëw hôtel rek la mën a dem fi kër amu fi famille mais man mi sama kër rek laa a dem waaye touriste nga voilà la loolu ñu ko mën a jàppee donc bi ma ñëwee yëg lu wax ak ñoom ma ne leen nag loolu il ñu jubbanti ko te attention amul nag borom passeport yi y a des sénégalais qui ont des titres de séjour yu nekk Italie depuis trente ans vingt ans dix ans tamit te ñu ngi fi donc ñu waxtaan ak ñoom ci diplomatie ñoom tamit ñu nangul ñu xam ni que loolu lu jub lu rafet la. Mhm. mais ñu tegal ñu ci ñaari mesure bi njëkk mooy que nit soo amatee double nationalité dafa am loo xamante ni daf laa war. Mhm. soo ñëwatee même dans ton pays d' origine mooy da nga war a yëglu ci ambassade ba. xamal leen ni man ñëw naa. bu ko defee ñoom ñu enregistré la mën la boole ci seen plan d' et de secours. donc ñun defuñu ko woon wax dëgg yàlla 300 sénégalais am passeport. leneen tamit faa ñu rapproché wu à l' état a a ñu pour a dellu. léegi nag moo waral ay gaaf ndax ci diggante bi Italie compagnie bi mag bi doon def Dakar Milan dafa fayit. moom tamit ci mois de mars bi Air Italie. waaw léegi euh, El Yoroba. waaw li may laaj mooy yow. Mhm. yéen ñaari junni sénégalais actuellement loolu la ñuy dellu te nangul nañu ko. ku leen ko nangul. état bu Italie ak état bu Sénégal. mais euh, Italie fu mu toll nii. mbas maa ngi fa jeexagut. mais actuellement nii levé nañ ko jóg na déconfiné nañu depuis lundi commencé waat nañu liggéey. yow fi ngay liggéeyee. Mhm. fa nga am contrat de travail. Mhm. foofu ñoom tàmbali nañu liggéey. non commencé nañu liggéey de façon générale ñëpp commencé nañu liggéey. non euh, li ma laaj mooy yow. waaw man personnellement man liggéeyuma consultance boobu tàmbaleegut. waaw ah, non man man ci laa nekk donc même à distance maa koy def télétravail. ñaa yaa ngi liggéey yow pratiquement ñeneen ñi la gën a intéressé ñi nga xam ci ay usines la ñu nekk ay société di liggéey. mais usines yi foofu fi mu toll déconfinement bi euh, génn euh, nit ñi tàmbalee liggéey ak yooyu. Mhm. nànk nànk lañ koy defagum. non non non commencé na commencé na liggéey quand même de façon générale commencé nañ dem liggéey actuellement bar a des te yooyu à la bi mëtagul. waaw maanaam mi ngi am ñu muy dal ba léegi mi ngi am ñu ngi hospitalisé ba léegi mi ngi am ñu ngi nekk réanimation ba léegi bés bu ne ñu ngi wàññi ay nit yu faatu foofu mais soo suivre actualité bi ñu ngi commencé déconfinement progressif bi c'est-à-dire que aujourd'hui liggéeykat yi moom commencé nañu Italie depuis lundi waaw léegi su fekkee déconfinement am na mhm. problème warta am ndax léegi Italie ñoom suñu déconfiné mhm. dinañ nangu mhm. ay roplaan yu dugg si si réew ma dinañ nangu tamit ñoom may nee nga seen compagnie moom fayit na Air Italie bi doon def Dakar. mooy Alitalia. Alitalia bu njëkk la mais après Air Italie lañ créé. waaw boobu moo fayit le mois de mars. Air Italie fayit na. Mhm. léegi kon yéen boo leen boo leen waree dellu. Mhm. vol spécial ngeen war a jël. mesure spéciale ak actuellement mooy yóbbu nit ñi. léegi vol spéciaux yooyu. Mhm. lan ngeen bëgg léegi fu mu toll nii euh, yéen yaa leen ko war a organiser seen bopp. wala. état bu Sénégal wala bu Italie. ñoom ñaar ñëpp ñetti entité yëpp ñun ñooy waxtaan donc ñun bi ñuy waxee ak bu Italie wax leen ñun suñu droit que dañoo war a dellu ñoom xam nañ ko donc effectivement ñu répondre avec un avis favorable mm-hmm. que mais c'est vrai ba léegi tijjeeguñu frontières yi ci monde bi aussi ça il ah. que loolu gouvernement ñooy xool saytu ñan ñoo war a ñëw est-ce que ñii ils ont le droit de rentrer ñu ne oui am nañ fa résidence ci Italie est-ce que ay liggéeykat lañu oui am nañ fa ay famille oui boo ko defee ñu joxe autorisation fi mu toll nii am nañ autorisation suñu premier vol mu ngi dem la semaine prochaine le 14. ah loolu lijjantiku na féete na boor mais. li ci lalu comme gàllankoor mooy ñu ci bëri ñun bi ñu ñëw dañu jëndoon ay billets aller retour ak seen vol commerciaux yi njëkk ya. ay air Maroc ak air France ak yeneen ak yeneen. donc léegi ñooñu mënatuñu dellu parce que billet bi actuellement nii tant que air euh, vol commerciaux yi demuñu ñooñu mënuñu récupérer seen billet donc vol spécial bi état Sénégal moo ko jox ak air Sénégal. mais nag condition bi ñu ko joxee ñu bëri dem. ndax tarif bi ñu ko joxee tarif bu cher la. ñaata 850 CFA aller simple. CFA Dakar Milan CFA. waaw léegi euh, El Hadj euh, Yoroba. Mhm. pour man. Mhm. jamono jii ñu nekk. Mhm. xel warta dem si. jëndoon naa billet. si vol commercial d' accord loolu vraiment dañ ko war a gas. d' accord naa ci d' accord naa ci loolu. d' accord naa ci loolu mais dafa am lu am tunkara loolu je suis tout te loolu wax nañ ko collectif. mais situation spéciale tamit mesure de spéciale ma ko war a. non d' accord yow a wax waxu mesure spéciale. Ah, loolu moom dañ la ah, koy ah. nangul. waaw foofu laa bëgg a ñëw. c'est-à-dire loolu loolu moo tax bële moom nañ gas suul. loolu moo tax na parce que loolu mooy indi lii. cest dire que ñun jëndoon nañu billet. donc impacté nañu dañ koy nangu parce que xam nañu mënut ñoo récupérer billet boobu tant lii jàllul. léegi gouvernement bu Sénégal son excellence le président de la République Macky Sall jël benn mesure mais nag ni ñu ko waroon a organiser ak ñi ñu ci waroon a jàppale quand même waroon nañ ci gën a mën a réfléchir sóoraal la ñu ñëwoon fii. impact doxalin bi des na pour yow. voilà voilà c'est-à-dire que ñi ñëwoon fii des fii ñoo nekk les premiers impactés en réalité ñooñu la ñu waroon fexe tey bi ñu tegee Air Sénégal ñu ne ñu ah d'accord ñun état ñëw nañ kat pour compenser seen billet yooyu ngeen jëndoon ngeen xamante ne mënu leen ko récupérer au moins ñu accompagner leen pour ngeen mën a dellu mu nekk état jël ci pour ñun mu ñu billet bi pour ñu dem. bon euh, léegi euh, El Hadj Yoroba man. Euh, seen situation bi xaw na xaw na compliqué. absolument. Euh, waaye nag euh, àdduna bi si waxoon moo compliqué jamono ju mel nii euh, bu bu bu compliqué. Mhm. dafa méngoo rek ak jamono ak réalité bi nga xam ne moom la ñëpp di dund. mais yow nee nga daal état bu itali mhm. état bu Sénégal ak yéen kuréel gi. Mhm. waxtaan ngeen. ba déggoo ngeen léegi nag jafe-jafe xaalis daal moo am. bon loolu moom yomb naa lijjanti euh, bon xaaral ma defal la gel. merci beaucoup gel wala. Modou Gadjigo yow euh, artiste nga. Euh, peintre nga. dañuy tàmbalee xool xanaa say tableau yoo xam ni da koy defar. waaw fii nga nekk ci Pétavin. waaw maa ngi ci Pétavin moo xool. Pape Samba cadrel ma. Mamadou. bii nag bii dafa taxaw. bii dafa taxaw ah couleur yi de moom rafet couleur yi dañoo xaw a méngoo ak man. waaw waaw couleur bi couleur de terre la sa signifie la nature. macha allah Pape Samb nga ko la lan la nii dafa mel ni nit laay. gis waaw waaw nit la ah. lii lii day signifier maanaam euh, si la nature existe c'est les femmes qui l'ont c'est pas les hommes. Ah, waaw bii loolu lay signifier. Hmm. waaw nature nag lépp a ngi ci biir éducation ci wàllum dund ci kër. lépp a ngi ci biir. en tout cas dund moom si jigéen lay jaar. voilà ci jigéen lay jaar la vie passe par voilà éducation aussi plupart ci jigéen lay jaar. parce que ñoom ñoo yore kër ga maanaam boroom kër dem na tabax këram ñëw indi def ci jigéen mais yow taxul ne nga moom kër ga moom moom moom kër ga parce que moom moo xam lu ci biir kër ga foyer bi. ñooy gérer waaw ñoom ñooy gérer. donc bii loolu lay signifié. aywa voilà euh, bii nag beneen bi. bon bii nii lu muy signifié mooy euh, doxalin. Euh, gis-gis doomu aadama ci meññeef ci sa biir réew bi loolu lay signifier hmm. waaw maanaam nit buy euh, wut meññeef pour hmm. mën a njëriñ réewam meññeef mooy li ngay bay non maanaam ci ci ci wàllum euh, wutin waaw euh, alal ressource daan sa doole voilà daan sa doole bi loolu lay signifier hmm. nit nag kenn mënul jékki-jékki rek na cëll te fekk amul fu mu jaar. mais lan lan moo nekk fii. dafa am jaar jaar bii personnage bi la. Uh-huh. bii personnage bi la bii mooy yoon bi. Hmm. yoon bi dafa bëri xam-xam. bi loolu lay signifié. est voilà. Hmm. beneen bi loolu la. voilà bi day signifié suñu culture. xam nga ñu bëri waaw suñu cosaan ak suñu aada. parce que avant ñuy créer la euh, euh, euh, le pays. ci îles yi la ñu doon dem rooti. balaa teen di am. voilà balaa teen di am. Mhm. bi lool lay signifier mais tey jii nii dañoo dema a dem ba gars yi fàtte ne tege ne lii culture chinoise la et que lii ça nous appartient. teen waaw waaw teen. waaw ah, lu tax ñu jàpp ne. non kii kii bi maanaam dafa demoon rooti ci ci lii nii ay gouton la. waaw dafa demoon reet rooti ci île bi. Mhm. ñëw indi di ko sotti. Hmm. lii mooy wane ne l'homme travailleur. Hmm. voilà. bu mujj bi nga indi. bon bi ah bi yi moom rafet na lool. domaine du scientifique lay wax. Hmm. bi domaine du scientifique lay wax te xam nga domaine du scientifique nag bu ñu koy wax nag lu ci gën a bëri ci tubaab yi lañ koy yóbbee te ñu aussi suñu maam yi nu mu mënta même bu fekkente ne xam-xam bi xam-xam bu ñuul la domaine du scientifique la mais pour pourquoi pas ñu ko mën a réabilité yóbbu ko eh, yóbbu ko maanaam ci dans une bonne sens. maanaam daal nañu dundalaat. ñun suñu xam-xam. voilà teg ko si yoon. mu méngoo ak jamono waaw mu méngoo ak jamono. parce que xam-xam moom fu ne la ne. ñun am nañu xam-xam bu wér. boo xam ne li mu soxla rek mooy ñu fulaal ko. faydaal ko fexe ba yëkkati ko daal. pour yëkkati ko. macha allah euh, léegi tableau yi. waaw euh, yow da nga leen di boo leen di defar. waaw yow yaay toog. sax nga nga xalaat nga xelu. waaw euh, am sa inspiration rek. tàmmalee def sa tableau. non tableau yi nag man daan naa doon defar mais dañ ma ko tere. ku ko tere. suma pap moo ma ko tere. lu tax parce que suma loxo moo xawoon na euh, garaaw ci sculpture mu tere ma ko parce que diine bugg ko bu ma ko teree nag booboon ak léegi nag lu ci gën a bari léegi damay inspiré wu. mais diine lu suma gars yi may liggéeyal. diine diine buggul sculpture. non sculpture euh, ay kii yooyu comme ay dessin portrait Ah, représentation image daal yu am image yu mën a am ruux parce que man ci côté boobu laa commencé woon mu tere ma ko bu ma ko teree nag ma xam ne nag sa waajur nag lu mu la mënta tere ci diine est-ce que da nga ciy war a nangu sa waajur lu mu la teree da nga ko ko war a bàyyi waaye lu mu la digal tamit da nga ko da ko war a def dëgg la ndax euh, waajur moom kenn mënu koo fay uh-huh. léegi euh, Mohamed waaw tableau yi kon yow defaroo ko keneen na ko defar tableau yi defaruma ko mais lu ci gën a bëri man damay jël suma initiative laay jël suma bopp ma orienté leen ci sumay œuvre bopp ñu defaral ma ma fay leen parce que nit ki kee bu la nekkalee ci naaj bi nga nekkal ko ci kër gi léegi euh, tableau yi. waaw yow da koy commander mu am ñu ko defar ñan ñoo koy defar. bon artistes yi bëri nañu y' a plusieurs artistes. différents damay commandé rek waaw damay commandé. léegi tableau yi lu ñuy lu ñuy jar. bon tableau yi bii nii par exemple lu ci néew a bii ñu ngi koy jaay 10 000. 10 000 CFA prix prix bu gën a ndaw bi. Euh, bi bi bi cher bii nag. bu fekkente ne bii la même artiste bi la lool lay jar. 10 000 waaw 10 bii nag. Mhm. bii moo gën a cher bii. bii bii balaa boobu bii. non bii aussi même prix bi la. 10 000 waaw. bii nag. bu fekkente ne bii la nag bii moo gën a cher. boobu ñaata. bii ñu ngi koy jaay 25000. bii 25000 waaw bii 25000 la ñu koy jaay. ah bii de moom daa yaaññi lool. waaw vraiment rafet. bon euh, léegi yow. waaw Mohamed. Uh-huh. sa sa yitte si si wàllum. Euh, fu mu toll nii aar bi. waaw lan la ba ban yitte moom moo tax. man nag yitte yi ma ci am bi nag dama koo yàgg am nag waaye mënuma am fi may ñaxtu te gannaaw yàlla ak yonent bi maa ngi la ciy gërëm tam bu baax a baax parce que ku fi ñëw rek dana mën a am lu xaw a leer tuuti ci bopp sénégalais yi ñun confinement bu ñuy wax bi ñun dañ ñu confiné depuis deux deux mille douze. 2012 hmm? lañ ñu confiné ñun. ba 2020. juróomi 2012 ba nu ñu leen confiné noonu. bon parce que xam nga bu ñu doon yëkkati tablier marchand ambulant yi dañoo waxoon ne ñun bokkuñ ci parce que vous vous n'êtes pas des tabliers sur le mur ngeen ñu leen leen waaw bu ñu leen yëkkatee ba pare ñu dellu si ñoom ñu leen déedéet yéen yéen ñëpp ci bokk vous êtes tous des tabliers ñu leen noo mënul nekk ñu jël ñu dugal ñu ci biir eh, kii bi site bi te site bi xam nga ne tableau bu toll nii. boo ko defee ci loo xamante ne lu toll ak un mètre carré. Mm. eso mën nga ciy teg plusieurs tableaux. du mën a nekk suñu suñu alal yépp ci la yàqu daanaka ñu def ci marché bi pendant trois ans ñu xëy guddi ñëw yàqaat lépp. yéen xëy fekk guddi gars yi jaar nañ fa jaar nañ fa kan moo def loolu. bon loolu ville de Dakar la te ville de Dakar moom ñëpp xam nañu. voilà léegi nag bu mu demee noonu ñu commencé tam di di di xeex ak ñoom ñu ne ñu bu ñu teg ñu ne leen fii la ñuy teg parce que ñun fii lañu ñu xam xamuñu fenn fu dul fenn joxaleen ñu fenn loolu tam dem nañ ci presque pendant deux ans deux ans ñu mën a teg suñu suñu suñu suñuy tableau ñu koy exposé par nank nànk booboon ak léegi nag mën mënuñu am possibilité parce que nit bu fekkente ne sa doomu réew mu ngi liggéey pour mën a soqali réewam même bu fekkente ne mënoo koo jox fond da nga ko war a orienté. waaw mais euh, Mohamed. waaw euh, loolu mën nañ la ko nangul. waaw mais est tamit mën nga nangu ne. àdduna dafay dox. jamono dafay dox. ba ñuy jiite. Mhm. léeg mën nañ jël ay dogal yoo xam ni pour defar loo xam ni dafa am ñu muy laal. ñu mhm. war leen déplacer. dëgg la loolu am la loolu kay moom nangu naa ko tey ñun Ndakaaru ñun ñëpp d'accord nañ ne que. yéen mhm. fi ngeen nekk pétavin. waaw dañ ko war a defaraat. parce que jamonoy tubaab la woon. ba léegi. dëgg la yéen bâtiment yooyu ngeen di lonku seen tableau yi. waaw yooyu jagatut. Mhm. parce que jamonoy tubaab la woon ba léegi. non loolu du bâtiment sax nekkul bâtiment parce que ci miir la ñuy exposé. non miir boobu laa wax. nekkul ci bâtiment non miir boobu laa wax. oui mais miir yi nag nekkul miir boo xamante ne bu ñu ko tabaxee yàggut. non mais mais foofu. bokkut bokkut ak fu ñu nekkoon. parce que xam nga ñun ci temps eh, ci kii bi la ñu nekkoon camp bi la ñu nekkoon. Hmm. ñu dinduñ bi. ñu beneen côté bi nii ci marché bi bu ñu génnee ci marché bi aussi ñu exposé waat ci miir bi. waaw miir boobu miir bu bees la. d'accord mais mais Mohamed man dama dama jàpp ne que léeg-léeg ñun euh, suñu la ah. sunu réew. Mhm. ak sunu ay dëkk ñun ñëpp tey nangu nañ ni dañ ko war a defaraat. dëgg la parce que ñun mënuñu nekk 2020. Mhm. nekk si même jumtukaay yi fi tubaab yi tegoon. ay 1800 nangam. effectivement loolu moom dëgg la il faut il faut mbir yi évoluer tamit léegi nag. Euh, beneen bu ñu la mën a nangul mooy doomi réew moom kenn du ko buntu xatal. dëgg la dañuy waxtaan déggoo ba ut maanaam saafara ut solution mais euh, yàqalante loolu moom. maanaam du njariñu kenn daal kenn si kenn du si kenn du dara te te loolu moom war ñu ko donc euh, dafa affaire dafa war a dem si ñaar pour man ñaar yoon am na boo xam ne ñii ñi ñuy jiite ñoom dañuy war a nangul ñiy jiite ñu jël yenn dogal yi pour defar te léeg-léeg comme li ñuy wax rek booy omelette foog nga toj ay nen. waaw foog nga toj ay nag waroo toj. waaye nag nen bi tam boo koy toj na nga xool noo koy tojee. non waroo toj toj boo xam ni dafay yàqal doomi réew mi. voilà maanaam lépp dafa war a dem si waxtaan ak ut saafara parce que ay doomu aadama yu am xel. vraiment ñu toogee di waxtaan pour am saafara dina am. ci leer. li bon rek ah, li ma jàpp mooy mu bugg la jaay doole bugg la néewal doole. léegi nag gis nga waxtaan boobu ngay wax nii loolay problème bi nag parce que ñun buñ ñu yëkkatee amul bunt bu ñu seetut ministre de la kii l'urbanisme ministre de culture ministre de de kii nu mu tuddati. Euh, intérieur tourisme. Hmm. ñoom ñëpp dem nañ ci ñoom. ba ci l'époque fekk Khalifa Sall moo fi nekkoon. dem nañ ci moom mais mën nañu am portinité pour mën a gis ak. léegi maire bu bees bi nag. Euh, maire bu bees parce que xam nga xam nga loo xamante ne da nga koo tàmbali depuis njëlbeen mënoo ci antu fenn. amoo benn portinité mën a dugg feneen. Euh, léegi ci lu mel ni rek looy mooy mooy mën a am yoon. Mhm. ndax ñu mën laa dégg. léegi ñun. Mhm. waxuñu leen nañ ñu jàppale jox ñu xaalis mais quand même mën war nañ ñu mën a orienté parce que ci biir réew mi la ñu bokk. non loolu moom te foo dégg loolu dañ si ànd 100 pour 100. te foo dégg te ko te foo dégg laa lay wax ni soqali réew. culture mu ngi ci biir. ah loolu wér donc foo dégg culture tam aar mu ngi ci biir. ah loolu kenn mënul dindi art ci biir. parce que tubaab yi bañ nañu ne boobu ñuy wax ne Pétavin mooy rue de Bourges euh, kii kii nu mu tuddee Beaux-Arts. rue voilà noonu lañ koy tuddee. léegi tey daji ni kan mooy romb Pétavin ngay gis comme avant ni nga ko doon gisee amatul. aywa euh, Pétavin euh, avenue André Pétavin fii diggante. Euh, immeuble Kébé immeuble Kébé ba Ponty. waaw non non ba waaw waaw ba Ponty waaw. ba Ponty foofu mooy Pétavin waaw foofu c'est Pétavin. Euh, si boppam xam nga ko moom moo doon kan. Pétavin. Hmm. Pétavin moom wax dëgg moom dama koy dégg rek. André Pétavin. André Pétavin dama koy dégg waaye xaw ma ko. moom euh, ministre des finances jamonoy tubaab yi. bi ñuy soog a am ñun suñu indépendance. moom moo fi nekkoon. moo fi njëkkoon nekk ministre des finances. Uh-huh. Euh, yor sunu koppar. Euh, tubaab la woon. waaw euh, waaye moom fii la faatoo. waaw te moom belleer gii lañ ko suul sax. belleer waaw. aywa. waaw léegi nag. Mohamed xaaral ñu. daam lu des parce que xam nga fii fu mu nekk nii dañoo wax ni ministre kii de la culture. Mhm. mu ngi dem ci artistes yi di dem fu ne. waaye ñun confinement bi tey la gën a piir tey la gën a piir parce que bu fekkente ne bu fekkente ne période période euh, période bu bu nekkuloon période bu nekk boo xamante ni jagadiwut nu mu mën tamit ñu ngi jaay as tuuti sax. mais fu mu toll nii jaay si mbedd. mais fu mu nekk nii fu mu nekk nii ñun laa lay wax ni pour ñu mën a jaay sax problème la. mais jaay boobu dañ ko aaye. fu mu toll nii waaw mais loolu loolee problème bi fu mu nekk nii am am amatuñu dara euh, ñi tablier yeeg ñi def. ambulant fu mu nekk xam nga lu ñuy dundee. Hmm. tawhid la ñuy dundee. tawhid mooy. tawhid mooy gëm suñu borom rek. dundee suñu borom rek. tawxid tawxid mooy lan yow. ah mais tawxid mooy ko ne maanaam nga bañ a nga bañ a fen bañ a sàcc bañ a ñublaan bañ a def naka sudul noonu. ngay dundee sa àq bu la yàlla jagleel. tawxid mooy wéetal yàlla. ah mais loolu la rek loolu li li lii tam ci wéetal yàlla la di. Eh, mais mais mais tawxid dafay dem si surtout bañ a bokkaale yàlla léegi mais dafa am leen lu am solo. waaw si si li nga wax mooy. Euh, loolu tey ñëpp ñëpp yëg nañ ko. Ah. ndax suñu réew. waaw ah. suñu koom. Mhm. dafa informel. li ah. si ëpp. Mhm. te informel boobu fi mu toll nii ñoom lañ tëj. dëgg la dafa tëj carrément moo tax euh, ñaar war a am. pour man ñaar benn mooy il faut waxtaan. dëgg la vraiment il faut waxtaan parce que koo xam ni moom li muy dundee boo ko tëjee. ah soo moytuwul euh, kooku moom mën nga koo puus. ah en tout cas lot nañu de. lot nañu moom. aywa bu fekkente euh, ne wax dëgg dëgg kese la. Hmm. ministre de la culture. nu mu demee seeti artistes yi. war na mën a sol dàllam ñëw ba si ñun seeti ñu. parce que ñun suñu njëriñ njëriñ njëriñ artistes yi la. parce que tey tey jii nii mais commerce ngeen bokk ah? non oui ma. non non non wuy ma. Mohamed non ma fii rek. commerce ngeen bokk non déglu ma fii rek da ngaa xamul dara. yow commerçant nga. non déglu ma fi da ngaa xamul dara. Hmm. gis nga yaa ngi gis artistes yu bëri yoo xamante ne tey jii ni ñu ngi seen tour mu ngi ci kaw ci ñun la jaare si naka parce que ñun ñuy jënd seen tablo di ko jaay mu nekk pipe ci ñoom bo bo ba ba yàlla def benn homme affaire man leen gis. mais woo leen commencé liggéey ak ñoom mais Mohamed commerçant nga. waaw mais commerçant da ngay jënd di jaay. yow ministre du commerce moo leen war a ñëw seet si. ministre PME moo leen war a ñëw seet si. ministre de commerce daf ñoo war a seet si ministre de la culture daf ñoo war a seet si. waaw non li ma bëgg wax mooy parce que ñun ñaari yëpp ñoom ñaari yëpp. Hmm. suñu loxo ngi ci biir. non man wax ma seen xam nga culture moom. waaw luy tubaab di wax transversal mooy dafay laale fu bari. waaw waaye yow mii tey. waaw commerçant nga. waaw commerçant la. da ngay jënd tableau di ko jaayaat. commerçant d'artisan la. waaw non xam nga com commerce moom. waaw parce que xam nga non damay damay damay bañ maanaam nga nga jéem a globaliser affaire yi te fekk na bokk. non Mohamed commerçant nga. waaw commerçant la. xam nga télé bi sax xam nga commerce moom. waaw lépp commerce. waaw waa Valda ñii. ay commerçant lañ. waaw télé bii commerçant la. waaw ba ñiy jaay téléphone yi. commerçant waaw nangu na ñëpp ay commerçant lañu. yaa ngi dégg donc yow. commerçant nga bu ko bañ. waaw non commerçant la nangu na. kon léegi yow ministre de la culture. waaw ministre de la culture way du moom du moom mooy sa ministre bi la ŋànk. waaw yow ministre du commerce moo la ŋànk. ministre de commerce. waaw mais culture bu fekkente ne wax nañu aar tam culture mu ngi ci biir. ah loolu loolu ànd nañ si aywa yor. chef foofu euh, yoroo sa sa sa message lan la. waaw sama message Tunkara mooy d' que c'est-à-dire continuité sax d' abord euh, sujet bi ngay def nii ak Mohamed cest à que ñu ngi wax njëriñ. Mm-hmm. je pense que aujourd'hui que Sénégal laa ngi koy wax léegi léegi économie bu informel la ñu am. mais kan moo nekk première partenaire u Sénégal ci économie am kan moo ëpp lu mu fiy dugal xaalis émigré yi la diaspora bi la donc situation yu mel ni su amee ñun waxuñu ne ñu dimbali jël xaalis jox ñu on n'en a pas besoin donc nañ defal ay mesures d'accompagnement. mais yéen mesures yooyu lan la war a nekk. mesures yooyu du leen aujourd'hui lu dul. Mhm. Tunkara vol Dakar Milan. war na mën a jar 500 euros au moins sañu nangu ko. maanaam daal ñu wàññi ko subventionné ko. na ko état subventionné 12 milliards 500 yooyu mu jël ñun diaspora bi kenn laajul te façon général ñëpp a ko bañ donc ñoom nañ ci tibb joxal ñu Air Sénégal ñu accompagner ñu. daal est-ce que yéen euh, ministre euh, bi yor affaires étrangères. justement wax ngeen ko loolu bind ngeen ko. dalal na yeggee ngeen ko. dalal nañu mais encore ñoom tamit tu vois que au sommet la. sa à dire que le cacophonie mooy mbir mi leerul. non non non parce que Tounkara la ministère des affaires étrangères am le directeur général des Sénégalais de l'extérieur. Mhm. cest à que ñetti entités yooyu dañuy poser problème. doo xam kan ah, ngay ah, entité yooyu. yow nga teg ko fi ñu yow fi nga ko fekk. non di nga comprendre après di nga ko non di nga wax loolu. parce que su fekkee le ministère des euh, des de l'extérieur ministère des affaires étrangères Amadou Ba moo ñu yore mais fonds yi ki ko yore c' est le secrétaire général de Sénégal de l' extérieur Moïse boo xam ne bëggu wax ak ñun. lu tax il ne veut pas. ah génn na ci presse bi il ne veut pas nous recevoir il ne veut pas nous parler te nee na ñun amuñu droit ci benn aide. Ah. voilà quelqu'un bu jël position boobu te mu nekk un émigré bu jógee France ñu indi ko nommé ko. Hmm. le nouveau directeur moo remplacé Sori Kaba Amadou François Gaye ci moom laa jóge nii léegi léegi vraiment il nous a reçu il nous a ci li mu mën. donc xool ñoom. mais Moïse Sarr daal moo lànk moom moom moom nee nañu yéen amuñu droit ci yéen ci lenn dellu leen Italie wala ngeen toog xaar feebar bi jeex ku mën a dem. parce que yow tamit parce que yow tamit italien nga. Ah am na ci. baax li ma lay wax c'est-à-dire avoir le passeport italien ça veut d' ah, accord maa ngi ñëw ci lan la ma jox parce que yàgg naa fa dund naa fa samay doom dund nañ fa ak ñeneen ak ñeneen am nañ papier fa lañ juddoo comme yeneen sénégalais yi. italien ngeen waaw d'accord am nañ pas mais double nationalité la ñu am c'est pas comme l'Allemagne Allemagne nga xamante daf lay obligé nga am rek benn nationalité. waaw waaw loolu tam ñun suñu obligé woon. choisir leen entre Sénégal Italie peut-être ñu bari ñu mel ni man dinañ choisir garder seen nationalité sénégalaise. mais vous m'avez donné le droit d'avoir les deux. waaw mais mais dellu leen donc su ma amee problème. non loolu euh, non <laughs> Yoro. waaw ah. jéem a xam sénégalais yi benn xamuñu ñaata lañu suñu autorité yi xamuñu ñaata sénégalais loolu yàgg naa ko laaj Sori Kabari xamuñu ko lu leer laa la ma ne ko mais Sori liggéey bi mu tàmbale te xam nga liggéey fu muy tàmbalee yoroo waay mooy ñu xam sénégalais yi ñaata la xamuñu ko Tunkara yow ministre Amadou Ba wax ngeen si oh, wax nañ leen ko ba pare jox leen ay idée ñoo xam que faaw ñu bàyyi ambassade yeeg consulat politiciens yi ñu teg foofu ñooñu mënuñu leen dimbali parce que ñooñu programme campagne électorale la ñu amee mais les vrais sénégalais yi ngay wax ñu nekk en Italie parce que fa laa nekk loolu laa mën a xam. Mhm. soo fa demee ay médecin nga fa ay juriste nga fa. ay chef ah, d'entreprise ñu ne ñu ne ñu ne voilà Soumbara façon figure bu nekk ñooñu associé leen boole leen yow ci li nga leen bëgg a defaraat. bon euh, léegi man euh, li nga li nga wax yoro moom euh, vraiment am na solo doomi réew mi moom. Mhm. xam nga état. Mhm. dafa am principe yu muy doxee. bi si njëkk. mooy yemale. d'accord. état dafa war a yemale ñëpp mhm. euh, parce que ñëpp ay fay impôt ah te ñëpp doomi état lañ état daf leen war a saytu daf leen war a ëmb daf leen war a uuf mhm. loolu moom euh, nangul naa la ko doomi réew mi fu ñu amee jafe-jafe état kéem kàttanam daf ko si war def kon ñoom ministre euh, Moïse Sarr secrétaire d'état Moïse Sarr ñu ngi leen di woo si kaaw ñoom yoro bi lu ñu si mën ñu def ko léegi yoro mais le pire Tunkara. Ah. pour juste benn benn brief li gën a bon mooy. mais ñun aujourd'hui nous sommes même victimes de stigmatisation dans ce pays la yow dem nga dégg nga ko. Hmm. nee nañ ñun seen première communication bi coronavirus njëkkee dugg Sénégal lan la ñu wax. immigré yi ñoo ko fi indi. waaw loolu bàyyi nañ ko léegi dem ba nit ñi jël yat sa dëkkandoo sa soo dëkkandoo moom mu jógee Italie mm. nga ne non xaar ma dem boole jikko xaar ma dem yoro loolu bàyyi nañ mais quand même on est victime loolu mais ministère de la santé bàyyi nañ ko tamit nangul nañ ko tamit mais quand même Tounkara état buy fonctionner buy doxee doo doxee noonu mais mais état ay nit a ko ŋànk nit ñooñu mëtuñu de dañuy juum xam nga ñoom euh, li gën di mindeef di wax rek doomu aadama yëpp ay juum te ñi gën si ñuy juum mooy ñiy tuub ñoom si si njëlbeen. lañ doon wax. mooy waaw cas bi importé mais loolu bàyyi nañ ko. waaw d' accord léegi ko nag d' accord leen léegi c' est ñu mën a rattraper au moins loolu. parce que mm. man mi nga damaa dëkk ak sama dëkkandoo. Mm. suñu rapport de bon voisinage changé na. ndaxte def nañ sa xel ni que man damaa amee coronavirus moom laay circulé ci mbedd mi. Mm. te man nee la man damaa bëgg a ñibbi dem liggéey kañ. c' est l' occasion nga mën maa yombal. non non non Yoro man man problème bi. du ma ko posé noonu. pour état daf si war a def kéem kàttanam. absolument man loolu laa gëm. loolu moo bon loolu benn la ñaareel bi nag mooy gaa ñi dañ juumoon. Ah, ah ni ñu doon communiquer non yoroo dañ juum. ok nit tamit dañ koy nangul. Euh, njuumteem vraiment euh, ku juum moom. Mhm. Euh, sëñ Fallou da doon wax ne. Mhm. ne wax jom solo. Mhm. ne tooñ lu mu rëy rëy rëy. njéggal lee ko ëpp doole. absolument. waaw donc ñoom juum nañ bon mm. léegi ñu ngi koy rectifier loolu déggatoo ko. vraiment euh, sant yàlla donc euh, war nañ euh, góorgóorlu sunu sunu mbokk yi ñu ñu jàppale leen mais Yoro. Mm-hmm. balaa ngay dem. sunu mbokk yi nekk Italie waxal ak ñoom làkk leen italien wax ak ñoom si. en tout cas ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp vi salutiamo tutti quanti. e pensiamo tutti a voi e speriamo fra un po' che la situazione si risolve e troviamo i nostri lavori. léegi eh, Italie moom bëri na lool ñu fa génn àdduna est-ce que yéen xam ngeen ay sénégalais. waaw am na ay quelques sénégalais mais bëriwul quand même. matul matul matul dix personnes. alhamdulilah bon li ñu gën a soxla mooy. Mm. masawu leen a dalal leen. loolu la sénégalais yi nekk Italie en réalité li ñuy wax ni yëpp soxlawuñ ko. ndimbal soxlawuñ soxlawuñ dara mais ku leen yëg leen. jox leen seen gëdd. macha allah te ñu bàyyi lajj bi ñuy def parce que Italie c'est pas la France. ñu bàyyi rek dañu daggal ay yére sur mesure ah ci immigration bi. que ki nekk Italie bokkul ki nekk France bokkuñu ay contexte ñu environnement bokkuñu li ñuy xalaatee bokkuñu li ñuy laaj. loolu moom ànd donc loolu lañ leen di ñaan nañu gën a jox suñu fulla jox ñu suñu gëdd et di ñu boole. ci li ñu bokk. Euh, loolu loolu moom euh, ànd yi si. Euh, am na nag ay jéego yoo xam ni am na lu mel ni bon def nañ ay député pour diaspora bi no yooyu ay jéego la. yoo xam ni yu ñu war a gën a xóotal gën a yaatal affaire bi comme ni ngay wax nii. parce que immigration. xam-xam la. waaw d'abord. immigration du ay yëfu como yi yëfu cuune. parce que immigré yi mën nañ nekk doole boo xam ne yow mën nañ la pousse. buux sa réew mu ah dem gis nañu ay réew yoo xam ni dañu réussir loolu Sénégal ñaata lañ fi dugal xam nga ko ñoom nee nañ banque centrale nee nañu officiellement daaw dugal nañ fi mille trois cent milliards sans nga compter leneen li nga xamante alors budget Sénégal nee nañ quatre milliards donc ñun mën nañu ñun réaliser Sénégal mais nañu boole associé ñu déglu ñu aussi c'est important non loolu mais man xam nga fan laay fan laay waxe mooy yow mhm. doomi Sénégal mhm. soo toogee ne dañ ma war a déglu. loolu mooy am na fu ñu lajjee. absolument mooy dégluwuñ la. soo toogee ne dañ ma war a boole. loolu mooy am na fu ñu lajjee boolewuñ la. parce que li ngay jàmbat rek. maanaam dañ ko waroon saafara. parce que ñi ñi fal. ak ñiy jiite. loolu mooy seen liggéey. absolument ñun faluñu leen wala jiitewuñ ñu pour ñoom euh, ñoo fi gën a rafet ñoom ñoo gën a nangam dañ leen fal euh, ñu ñuy jiite. ngir ñun. Mhm. suñu ay yiite ñu taxaw si. ba mhm. pare indi ay euh, saafara. Mohamed sa message lan la looy. bon suma message xam nga lii boo déggee art culture lii bokk na si moo ci ëpp doole. loolu wax nga ko ba pare. waaw non non maa ngi ñëw. mais nag damaa bëgg nag ñu xam ne ñun ci réew mi la ñu bokk. xam nañ ko Mohamed. non non xamuñu ko xamuñu ko bu ñu ko xamoon rek dañ ñuy jàppale waaye xamuñu ko parce que mësuñu mësuñu ñu boole dara dara dara maanaam ci domaine culture. culture daal dañoo jàpp ne daal musique la te musique maman la. maman mooy. mi musique c'est maman ku ku fi génnee album même pas un an. Ah, benn moment la ok yàggul daal lu lu lu gàtt la. voilà lu gàtt la mais aar nag lii nga sol ni aar la kii lu ma sol li aar la. lii Pape Si Diallo. voilà euh, man li ma sol li aar la. Mm. xam nga léegi nag dañ ñu war a. gerte fii lañ ko ñëwee. waaw bii fii lañ ko ñëwee. sa mbaxane bi fii lañ ko defaree. <laughs> non non mbaxane bi bi man dama ñëw. mbaxane bi du local. <laughs> non non mbaxane moom du mais nag mbaxane mi tam nangu naa ko sol. Eh. voilà mais nag dama bëgg ñu gëstu ñu baax a baax. ñu xam ne ñun doomu réew mi lañu. loolu te lii. Hmm. aar bokk na lii gën a soqali réew mi. parce que tey de jii nii baatu benn artiste buy woy mënul dem fii ba fongole mi fu àdduna bi fu mu yem fi. Ah, mais benn tableau non may ma tudd ma ñëw benn tableau parce que olof olof olof la ñuy wëy. waaw olof la ñuy wëy bi nii ah, dañuy dégg olof déedéet déedéet amul olof fii la jëm territoire Sénégal bi fii ak maanaam quelques pays Afrique ak maanaam suñu mbokk. Sénégalais bi fii fongolem bi Sénégal la. non maanaam boo boo déggee maa ngi wax noonu. hors de pays laa nekk di wax. ah boo génnee Sénégal voilà boo génnee Sénégal. Ah, mais mais lii mais lii tey jii nii lii mën ngaa dem fii nga fekk ko ba gannaaw mag. ah waaw. kon lii dafa wane ne lii moo gën a riis ci culture te lii day wax xam nga eh, dañ dañ ci war a maanaam gëstu jàppale ñu jàppale ñoo xam ne ñun ci doomi réew mi lañ bokk te ñun aussi dañoo bëgg a bokk ci développement réew mi te lii développement réew mi def ciy bokk am na ci wàll wàll bu mag a mag écart bu mag a mag la ci am. Mohamed Gadjigo message bu am solo. Euh, yoro mais nag fàtte nag. aywa déedéet euh, kenn waru leen fàtte. parce que bëgg nañu nag bëgg nañu nag. ministre de culture maanaam nu mu jaaree ci yeneen gox yi yëpp mu jaaree ñoo si ñun ak ministre du commerce yëpp voilà commerce mu ñëw seet si ñu. aywa moo xam ne lottu nañu. macha allah delloo njukkal euh, Mouhamed euh, Gadjigo wax. maa ngi lay delloo njukkal yooyu aussi di la sant bu baax a baax vraiment. Euh, El Hadj moom tamit delloo ko njukkal sunu ñawkat moom mooy Pape Si Diallo fii ci HLM Nimzat njiit création moom tamit delloo ko njukkal dañuy am xaarandi bu ndaw bu ñu def balaa ñu dugal sunu yeneen gan yoo xam ne ñoom dañuy wax yan initiative maanaam li tubaab di woowee initiative mooy si wolof yan yan xalaat. ñoom nga jëmmal ñooñ ñoo fi nar toog léegi ginnaaw bi ñu amee benn xaarandi si yitte ak njariñ delloo njukkal euh, sunu mboolee mi euh, naataango ñu nekkal tey si euh, technique bi ñoom ñoo tax ngeen ñuy dégg di ñu gis sunu ñëwkat mooy Pape Si jàlloo njiit création fii ci HLM Nimzaat moom tam delloo ko njukkal Mohamed Sarr moom moo jiite cœur du partage cœur du partage kuréel la boo xam ne ay xale ay mag ay ndaw euh, yoo xam ne ñoom leen yitteel rek moom mooy nan la ñuy fexee ba euh, bay seen waar dugal seen loxo ci lépp loo xam ni doomi réew mi dañ ko soxla mais nag ñoom dañoo am euh, surtout jeng jëm si taalibe yi ah. Mohamed dañuy la ziar maa <laughs> ñu def gel waaw li ma wax am na. waaw dafa am kay. salaamaaleykum <laughs> waaw kër du partage ñu ñoo ko bokk nag. waaw waaw dëgg la dëgg la suñu mbir la. ñëpp mais euh, kër du partage surtout euh, groupe WhatsApp yi moom moo koy gën a dundal loola. waaw ak ak page Facebook aussi. page Facebook déjà maa ngi nuyu ñëpp di baalu ñëpp ak aussi si koor bi quoi. kër du moom comme ni nga ko xamee rek ay xale la yu dajaloo te xam nga tam xale yi ñoo nekk ci Facebook bi xale yi ñoo nekk si WhatsApp bi mais ay xale la yoo xam ni xaw nañu wutee ak ak peut-être xaw nañu wutee ak ñenn ñi parce que ñoom leen soxal rek mooy nu ñuy def ba doomu aadama yi am jàmm. est-ce euh, léegi euh, cœur du partage bi mbas mi tàmbalee. waaw ah. yéen lan moo njëkk ñëw si seen xel. waaw parce que xam na ñun moom tout le temps dañuy dañuy favoriser xale yi quoi. Mhm. parce que tey kenn ku si nekk xam na ni xale moom genre dafa xaw a surtout réew mi fi ñu toll nii dañoo xaw a sàggane xale noonu ko ñu baal ma si wax bi. ba moo tax ñun bu affaire yi tàmbaliwee rek takk suñu xel dafa dem ci ci taalibe yi ak ndongo yi nga xam ñoom ñoo nekk ci daara yi ñu internet leen foofu. parce que des fois dañ leen di fàtte quoi donc ñun dañoo jóg pour utal leen ay masque quoi pour wan leen ni ñoom tam si ñun la ñu bokk et que waruñu di leen fàtte daal. léegi yéen euh, seen euh, seen xalaat bi ngeen jëmmal. Mm. moom mooy waar yu ngeen bëgg a bay si mbas mm. mi. Mm. mooy xale taalibe yi ngeen utal leen ay masques yu ñu takk. ñaata masque ngeen am mbébét defar. non mu ngi koy ba ba ba mbas bi di jeex rek. fi mu toll nii ñaata masque ngeen dajaleegum jox ko xale yi. bon démb démb rek déjà journée démb rek am na trois daara yoo xam te ni jox nañ leen masque xam nga daara yi soo ñëwee ñoom ñoo lay wax nombre masque bi ñu soxla. Mhm. démb am na daara boo xam te ni mu ngi nekk Parcelles Assainies unité 13 jox nañ ko 100 masques beneen bi mu ngi nekkaat Parcelles Assainies unité 13 jox nañ ko 45 masques beneen bi mu ngi nekk Parcelles Assainies unité 14 jox nañ ko 25 masques. 100 ak 45 muy 145. Euh, waaw 145 boo si yokkee 25 muy. cent quarante cinq ak vingt cinq ça fait combien cent soixante dix. Pape Samba yow kay nga jàng calcul mental bon euh, léegi euh, Mohamed. xale yi soo leen leen joxee masque yi. waaw yéen xale yi ñu ngi leen fi mu toll nii génnuñu. non génnuñu. xale yooyu léegi ñoom masque yooyu yéen est-ce que da ngeen fay jaaraat joxaat leen yeneen parce que masque bi su fekkee danga ko jox xale bi mu nekk benn rek. Ah. masque bi su demee ba tilim. Ah. mën na ko indil ay jàngoro. waa ah, si. léegi loolu ban waar ngeen si bay wala yéen dañu di ñëw joxe masque yi rek dem ngeen. non xam nga xam nga dèjà daara yi fu mu toll nii daara yu si bëri même ñun bi ñu demee di leen jox sax am nañ masque fekk nañ leen ñoo am masque. voilà donc ñun dañuy maanaam dañuy indi suñu doolee quoi wala dañuy indi suñu njàppal si réew mi rek. foofu lañ parce que tey itam ñun xam nañ ni tey jii suñu boroom defalul kenn koo xamante ne ni mën na def lépp. donc ñun dañuy fexe li ñu leen fekk noonu ñu amas néew ñu dolli leen. loolu dëgg la parce que xoolal euh, Mohamed. Mm. état bi Sénégal sax di wax ne dajale na 1000 milliards waaye taxul ba léegi soxla nañ ndimbal. tey euh, boo demee ay ñu ëpp ñu ñu ëpp doole ay France ak ay euh, Amérique ak ñooñu ay milliards yu dul jeex lañ teg mais ba léegi. soxla nañ ndimbal kenn matlewul mm. léegi Mohamed yéen ñii. cœur hmm. du partage fi mu toll nii. Hmm. fan ngeen di jëlee masque yi wala xaalis boo leen jëndee masque. waaw cœur du partage nag déjà foofu moom foofu l'affaire yi gën a gën a yéeme wi sax parce que yow peut-être xam nga si dara yàgg naa ñëw fii nii am na ay phase yu ñu yàgg def maanaam dem nañ si kaso yi xam nga dimbali ay nit yoo xam ne xamante nii dañoo nekkoon hôpital Fann amuñu lu ñu fajoo ñu ñëw fexe ba yëggati leen faj leen xam nga yàlla def ci suñu loxo daal la ñu wéree. donc loolu noonu yëpp te ñun ni ñu koy defee mooy maanaam ñun dañuy xool tey comme par ñu ne tey kii la war a dimbali. Hmm. dañuy dem si moom xool lan la soxla xool lan lañ ko war a dimbaliwee bu ñu ko xamee ñu ñëw si suñu gars yi ñu ne gars yi kii de lii lañ soxla si moom. Hmm. après nag gars yi commencé dajale yow boo amee dërëm nga indi kii bu amee juróom mu indi kii bu amee fukk mu indi ñu dajale jox ko ñun noonu la ñuy fonctionner quoi. kon fu mu toll nii li ngeen defagum si ay masques yëpp. jëmee ko si taalibe yi jëmee ko si daara yi. cotisation wu gaañ la rek. kese amul leneen parce que ñun tam tey jii dañoo dañoo bëggoon xam nga xam nga xam nga Tunkara dafa am benn affaire bu sénégalais di réere quoi maanaam doomu aadama bi boo ko bëggee dimbali. Hmm. jarul ngay dem di wut autorisation fenn wala ngay dem mairie wala feneen noonu nit ki da nga koy dimbali te yàlla tax te comme ñun yàlla moo tax ñuy def te tam yàlla def te yàlla tax waroo ko xeeb. loolu moo tax léegi ñun ne kenn ku si nekk day génne lu mu am rek ñu dajale dem joxe. Euh, moom it yéen li ngeen def euh, solo bi mu am moom mooy. Hmm. Euh, kenn ku nekk tey su amee xalaatu man foog ma foog ma def dara te man duma xaar kenn mm-hmm. man xaaruma papa xaaruma yaay xaaruma chef de quartier xaaruma maire xaaruma mm-hmm. état xaaruma patron xaaru man daal lii laa mën a def oh. tuuti na de mën na doon ma dem jënd benn gelu valda bu jar amaana ñeent fukk ma ñëw fekk benn daara mm-hmm. ne leen maa leen ko maa leen ko jox. effectivement da nga wax lu am solo mooy xeeb moom. Mm. saa yoo koy def rek yow danga xamul ne euh, du du lu bari. Mm. lu ñu mën a gis. Ah. moom mooy defar sax parce que lu bari mën na yàq. waaw waaw mais lu tuuti moom. mën naa indi barke. Ah. boo xam ni loolu euh, mën na dem fu soli léegi nag Mohamed yéen objectif yi. Ah. lan la. objectif yi mooy ñun tey ji xam nga doomu aadama bu nekk tam dafay dafay ñaan suñu borom bu dugalee loxoom ci benn mbir rek. foofu suñu forom def fa sotti maanaam loolu sotti léegi tey comme fi mu doon nii xam nga ñu ngi si ñu ngi si daara yi parce que ñu ngi jàppale xale yi pour ñu am ay masque mais aussi idée bi nga xamante nii dafa ñëwaat si suñu bopp te incha allahu rabbi dañ koy jëmmal mooy dañuy dañuy dem si daara yooyu noonu genre di di fexe ba xale yi des fois nga fekk xale bu am ay góom wala mu am ay picc wala affaire yooyu noonu donc dañuy def de temps en temps ñuy dem si daara yi. Mhm. pour génnee xale yi nettoyer leen xam nga defal leen genre. pas sang sax parce que dinañ leen sang affaire yi noonu mais ñun daal dinañ ñëw xool li nga xamante nii moom la hôpital waroo ak ñoom maanaam faju ndaw yi ay góom ak ay picc affaire yooyu xanaa dafa am ay ñoo leen di àndal si waa kër docteur ay infirmier wala ñu am xam-xam si loolu ah que kër di partage ay xale la xam nga xale moom ku nekk ak liggéeyam ay nit ñooy dajaloo léegi kii day nekk tailleur kii nekk soudeur kii nekk médecin kii nekk infirmier kii affaire loolu moo tax affaire yi am solo. léegi boo leen boo di dem ñi nga xam ne ñoom seen xam-xam màcc na si loolu dañuy demaale. su ko defee gunge affaire bi daal waaw waaw day yomb parce que ñun pàcc bu jël rek dañuy am ñoo xamante ni ñi ngi liggéey si loolu comme ça affaire day gën a yomb. léegi euh, initiative boobu tamit dem si euh, daara yi xale yi ñu am ay góom walla ñu am ay euh, ay dana yooyu yëpp ngeen ngeen jàpp si. Mm-hmm. ndax yéen. Euh, loolu dafa am foo leen koy ciblé di ko def wala si daara yëpp ngeen ko bëgg def. non daara yëpp ñun ñun amuñu amuñu frontière ko daara xe bàyyiwuñu benn daara mais def si daara yëpp tamit dina métti xam nga daara yëpp lu tax du métti noonu yenn yi parce que tey boo demee si daara bi nga dajale xale yi nga faj leen. Hmm. nga toogaat 15 jours wala un mois nga demaat si beneen daara. boo ko bëggee def noonu rek di nga daanaka di nga daj daara yëpp ko incha allah te comme li nga wax rek li am solo mooy yow nga am loo def fenn rek loo def waaw te loolu ma mais euh, sànq moom da nga doon wax euh, ne réew mi hmm. yow da nga jàpp ne xale yi dañ leen fi sàggane no da dama si am lu ma leer ko loolu ah, daf daf ma wóor gis nga ah. tey rek tey wallahi image bi mu ngi sama téléphone sax quoi tey damay jóge port di dem di dem ñibbi suñ kër si autoroute bi côté Colobane noonu oto yaa ngi daw lu bëri xale bi daw traversé ñëw mu arrêté ma taalibi la man après dama tiit sax quoi mu arrêté ma ma taxaw après beneen moroomam tam daw ñëw ñu ne pour ma yóbbu leen ci côté pont wu pont wu pont wu ànd bi quoi parce que dañuy ñibbi ma ne leen kan moo leen wax ngeen yalwaan xanaa waxuñu leen ngeen toog ñu ne noonu ñoom waxuñu leen ñu toog. Mm-hmm. xam nga léegi après man dama mujjee jël kenn ki teg ko ci kanam jël kenn ki ko sama ginnaaw moo ko jàppal bu baax ma supporté leen ma yóbbu leen ba foofu. scooter nga yor waaw moo tax waaw. parce bëgguma leen fa woon bàyyi parce xale yoo xam peut ay taalibe lañ ak dëgg bi fi ñu toll nii ak li ñuy wax taalibe yi dañoo feebar affaire yooyu gars yi dañ leen di daw quoi moo tax ma ni bon naa leen jël yóbbu leen quoi donc pour wan leen seen ah, di daw taalibe yi ah bien sûr parce tey su nekkee yow dégg nga c'est parce que tey loolu noonu sa xel rek boo gisee taalibe sax amaana ni ah est-ce que xale bi itam wóorati na wala fële parce que nit ñi tam yemuñu am na ñoo xam daw xale ñun yàlla daf ñu natoo ñu bëgg xale te yàlla rek tax te ku xam kër di partage xam ne moom dafa am nu mu mel ak xale yi ko mais nag ñëpp yamuñu léegi euh, corona boobu si taalibe yi yan xabaar nga si am waaw man daal benn benn daal laa si jotoon dégg boo xam ni Thiès la woon ko ah, benn benn taalibe bu am corona mais à part boobu déggaatagu ma si benn oto. loolu loolu loolu dëgg la. kenn mm-hmm. kenn déggaatu si dara. mais euh, taalibe moom ni ni ñu koy defee si réew mi moom. Mm-hmm. dëgg-dëgg moom la moom la moom la ñuy ñaawlu daal. non waaw mooy xale moom euh, moom léeg man sama sama yaram day daw daal parce que su ma àndeek samay samay doom man. Mm-hmm. ñu nekk si anam yu. Euh, yi ma nekk man. ñu ànd gis seen moroom. seen moroom bu nekk taalibe si mbedd mi yor pot sol ay sagar def tànku neen. dëgg dëgg man damay am lu ma mel. non neexul de te kaay moo wax la benn affaire pour wan la ni rek peut-être dafa xaw a ak nit ñi ni ñuy ni ñuy doxalee ci wàllu dimbali wante parce que am na ñoo xamante ni tey bu ñu la dimbaliwee. Hmm. boo toogul wax ko dootuñu la dimbaleeti. Hmm. comprendre hmm. loolu benn la mais ñun dañuy xool li nga xam ni nit ñi duñ ko def ñun si yooy la ñuy ciblé quoi. maanaam tem gora ba nga nekkee Sénégal ba léegi néew na nga dégg ay nit yu jóg dem di fóotal daal taalibe yi. fóotal taalibe yi. waaw waaw loolu mës moo ko dégg lu dul si yéen. te na ma yàlla jégal quoi taalibe bu taxawee nii rek dafa am benn odeur buy dégager wu si moom. loolu ñi ñi ñi xam taalibe yi des fois dinañ dinañ xam ni effectivement. mais parce que xam nga boo boo nekkee yow sol ay sagar euh, ne ci mbedd mi fu la neex nga tëdd lu la neex nga lekk. Mm. Euh, loolu day normal nga am benn. xeet voilà léegi nag pour fóotal taalibe yi tey. xale yi soo jëlee yére yi di ko fóot am na ay yére yu bëri yoo xamante ni doo ko delloo war sax ñun souvent dañ leen di dajaleel ay yére dañuy wax gars yi ko am ay yére yoo bëgg may xale yi ngeen indi ko ñu yóbbaale leen comme ça bu ñu leen bu amee yoo xam te ni yàqu na ñu mën si yokk. non parce que taalibe yi ñuy sol nag Mohamed boo ko boo ko seetee lu ñu war a sànni la léeg-léeg sax. waaw waaw si am na ñu ñu war a sànni. parce que ñun aussi ñun ñuy tiim affaire yi di ko fóot xam nañ ni lii nii. lu nit war a sol ak lu nit warut a sol. mais am na ay euh, bàjjanu gox yoo xam ni si yenn euh, gox yi ñoom dañuy jàppale taalibe yi di leen di leen fóotal tamit yooyu te loolu tamit am na. xëy na mais ñun moom. yàlla dafa def dañuy wooye ndey daara. waaw waaw waaw non am na. parce que parce que parce que même si kër yi sax quoi amoon amoon na ay temps yoo xam ne bëri woon na maanaam nit ku nekk da doon jël benn taalibe. di ko sang di ko toppatoo. Hmm. loolu nag laay woowaat sénégalais yi surtout loolu. parce que man bu njëkk dama ko doon gis ñun bi ñu nekkee xale dañu doon sang taalibe bi ñëw benn wala ñaar ñu dugalandoo ñu si paan bi wala si douche bi sang leen bu ñu paree diw leen toppatoo leen après jox leen ñu lekk après ñu dem loolu ku ku yàgg xool rek xam ne loolu yàgg na am Sénégal ko mais léegi dama commencé gis ni daf fi daf fi commencé raar ah, daal. léegi du gën a raar ak jamono ñu ne nii feebar yeeg yooyu. waaw dëgg feebar moom gis nga man dama koy wax sénégalais yi chaque jour man loolu dama koy faral di wax ko du corona mooy rey ko suñu borom moom mooy rey parce que yàlla avant corona mi ngi doon rey nit yi. te aussi après corona nit yi dañu dañuy continuer di décédé. waaw mais Mohamed attention tamit. Mm. si si loolu parce que corona euh, sababu dee la. non si xam naa. waaw xam nga sababu dee moom daa bari. Ah. accident sababu dee la. Ah. xaru sababu dee la. Euh, feebar euh, cancer sababu ah. dee la nangam nangam sababu dee la. corona tamit mën na nekk sababu dee. waa léegi lu mu nekkee sababu dee moom moo gënoon war a tax nag ñu xam ni xale yii itam ñii ñu corona mën a jàppaleen waaw ñu jàppale leen kon te yàlla tax bu kon naa bañ leen dab. non loolu moom dañ see ànd. te xale yi euh, Mohamed sunu ay doom lañ. sunu ay rakk ah, lañ sunu ay jarbaat lañ. parce que ah. ñun ñëpp tey ñun ñoo bokk réew mi. Ah. Euh, tey amul benn doomu Sénégal boo xam ne yow euh, mbiram warul doon sa yitte. te affaire xale yi. Hmm. man Mohamed loolu dama ko fi yàgg wax ne sunu réew mi bokk na si ñu dem ba ne suqaliku na. Hmm. mooy ñu bañati gis ay xale yu taalibe. loolu la. ñuy tambaambalu nii si mbedd yi nekk parce que dangay xool xale bu am juróomi at léeg nga fekk ko mu tëdd si si si mbedd mi di nelaw. non lu dafa xam nga xale boobu kooku. mën nañ koo sàcc. Ah. mën nañ koo siif. Mm-hmm. mën nañ koo faagaagal mën nañ koo rey lu ne mën na ko. te man. Mm-hmm. Mohamed mm-hmm. man sama doom du ma nangu mu def loolu. non man man man man dafa am benn bu ma jaaxal aussi mooy man dama gisagul benn dëkk bu développé ñu nekk di fa toroxal xale gisuma loolu man gisuma loolu fenn. mais Sénégal moom wax dëgg yàlla xale moom am amu fi amu fi doole noonu ko am nañ euh, ay euh, jéego yu ñu teg bon xale yi nañ fi jógee waa direction de la protection de l' enfance ñu ne dañuy raafal xale yooyu euh, jël leen delloo leen si seen ay daara léeg sax ñu am fu ñu leen fu ñu leen denc yooyu. Ah. am na yu tàmbali. mbir mi war na gën a bar. non waaw te man dafa am benn affaire bu ma bu ma bu ma gisoon quoi maanaam nit ñi bu fekkee ne bëgg nañ affaire yi gën a avancé yalwaan bi lañ fi war a arrêté. Hmm. maanaam nit ki su fekkee ni dafa jur doomam amul lu mu ko taxawoo wala amul lu mu ko jàppale wee wala dara. Hmm. mu jéem a xool nan la ñuy def ba dugal ko ci fenn foo xam ni xale bi genre internat lay nekk. parce que tant que yalwaan mu ngi am rek xale yi da ngay gis oto bëkk leen fii. wala hmm. moto bëkk leen fii wala ñu sàcc leen war dara parce que kii yalwaan yi mën na tase ku nekk. Ah, waaw mais nag su fekkee xale bi dañ ko internet fenn laa su boobaa xam nga. sàmm ko ci lay xaw a gën a yomb daal. non euh, mbir mi moom dafa war a am euh, dafa war a gën a méngoo ak jamono. Euh, ndax jàngum alxuraan moom ala kulli xaal. Hmm. jullit moom daf ko daf ko war a def. Hmm. waaye si anam yi ñu koy defee moom lañu war a gën a méngale ak jamono. te feebar yi bii ñëw tey mbas mi. daf ñuy wane ne daf ñuy wan ne. Hmm. war nañ gën a jël suñuy matukaay si fànn yu bari. parce que tey par nee nañ xale yi doon yalwaan toog leen. par force nee nañ leen euh, ñu toog. Euh, te dëgg-dëgg même sëriñu daara yi sooy waxtaan ak ñoom ñoom bu doon seen sago. Mm-hmm. du ñu bàyyi xale yi noonu ñu dem. dëgg la dañuy yalwaan mais léeg-léeg situation bi moom mooy compliqué. Mm-hmm. Euh, ba li leen indil duñ ko antan. ba il xale yi dem fàggu lu ñuy dundee. Mm-hmm. lu ñuy dundalee daara ji tamit. te loolu yëpp après dafay indi ay affaires yu yu yu compliqué. Ah. message bi tey dénkaane bi. Hmm. Euh, maanaam lan la. waaw message bi moom ko comme d'habitude rek ñun loolu la ñu yàgg wax mooy ñun dañoo nekk di dimbale nit ñi te yàlla rek tax et que li ñuy def lu tax ñu koy siwal des fois wala di ko fësal mooy dañoo bëgg nit ñi toppandoo ñu. parce que tey réew mu nekk ay xalem ñoom ñoo war a jóg xam ni réew mi kat dañoo dañoo am yaakaar si ñoom. Hmm. ñu def ngir réew mi ñun dañoo bokk si réew mi te am aussi dañ ci am part. dañoo bokk si ñi nga xamante ni dañoo war a dañoo yaakaar ni dañoo war di def te yàlla tax ngir réew mi jëm kanam loolu kese mooy ñor. est-ce que euh, léegi euh, cœur di partage ku si bëgg bokk moom nu muy def. amul problème cœur du partage ku si bëgg bokk yomb na déjà am nañ page Facebook ku ku dem mu tapé kër di partage les cœurs du partage dinañu fa gis sinon aussi képp ku bëgg bokk si groupe WhatsApp wala dara mun nañu woo si 77 691 86 85. 77 691 86 85 euh, xale yi. Euh, yéen ndaw yi ñu ngi leen di woo si ngeen jokkoo ak ñoom Mohamed Sarr ñii Cœur du Partage. dugal seen loxo si seen. Euh, askan loolu mm. dafa am solo. Mm. Mohamed nit dundam dafa war am njariñ. te dund bu am njariñ bokk na si yow. nga fexe ba bokk ci kuréel goo xam ni ñoom leen tax jóg rek. Mm. mooy néew di doole. Ah. ñu dooleel ko néew di doole ñu jàppale ko. suñ borom nag. moo teral doomu aadama ah. léegi doomu aadama moom kenn waru koo toroxal te doomu aadama fu mu mënti nekk dañu war a fexe ba mu gën a kawe ah. doomu aadama bu nekk si jafe-jafe dañu war a fexe ba jox ko euh, jox ko loxo mm-hmm. mu mu jóg surtout mm-hmm. nag euh, dafa am benn boroom xam-xam bu koy wax Mohamed ne réew léeg mm-hmm. dangay natt seen nite ah. si ñoom ni ñuy toppatoo xale yi ni ñuy toppatoo dof yi ak ni ñuy toppatoo ñu ne si kaso yi mu ne léeg loolu nattukaay la. Ah. pour xam ndegam réew moomu. ñoom fullaal nañ doomu aadama. te doomu aadama moom ku ko fullaal. suñ borom suñ si boppam moom moo lay fay ndax yàlla dafa teral doomu aadama. Ah. kon doomu aadama. mbindeefu teraanga la. Ah. aywa euh, delloo njukkal sunu euh, techniciens yi ñu àndaloon tey yëpp euh, waa waa réalisation waa son waa vidéo waa. Euh, décor waa régie euh, yéen ñëpp vraiment amuñu seen fay euh, Mohamed balaa ñu dem xanaa dañuy defaat tuuti gel fàttali nit ñi rek ne ah. set moom ah. moom dafa di buntu yiw ak ak teraanga ah. sunu ñawkat Pape Si Diallo fii ci HLM Nimzat njiit création ñoo ñëpp delloo leen njukkal sunu ay téléspectateurs amuñu seen fay foo leen mënti nekk si àdduna bi mm. di ñu bàyyi xel ñu di ñaanal jàmm xewal ndimbal ak yërmande di ñaan suñu borom. mu may ñu ba mbas mi ñu mbas ko. donc ah. boppam euh, mu abal ñu su ko defee suñu dund. gën a normalaat parce que su mu toll nii suñ dund yi moo met normal. non dund dafa metti. moom kay est-ce sax dafa metti dund yi moom normal fu mu toll nii. vraiment huit heures nga war a tëddi ñu bëri seen liggéey taxaw na. Hmm. ñenn ñi fi lañ nar a jógee seen liggéey yàqu ba faw. Ah. Euh, ñu bëggoon tukki mënuñu tukki ñi waroon dellu seen am na ñoo xam ne tey ñu ngi Ziguinchor. Hmm. waroon ñëw Ndakaaru mais xam nga dafa am benn benn phénomène bu ñu bàyyi xel. Hmm. nit ñi dañuy wax waxu koom rek. mais wàllum wér-gu-yaram parce que dafa am yeneen feebar yoo xam ni. day dale am na koo xam ne tey mi ngi Kaolack. Hmm. amoon rendez-vous ak docteur am Ndakaaru. kooku mënta ñëw am na mi ngi Ziguinchor amoon rendez-vous ak docteur am Ndakaaru mënta ñëw. mais nag si loolu moo bëgg leeral benn affaire foofu est-ce que tey bu ñu góorgóorlu woon ba li am Dakar. lu ko jegee am Kaolack kooku dina soxla di jógee la di ñëw Dakar. non loolu moom euh, dama see ànd ak yow. 100 pour cent mooy. Euh, mbas mi. Mhm. Euh, suñu borom daf ñu siy jàngal ne ñun. ci war a yeewu daal. sunu sunu sunu toogaay. ak sunu taxawaay. Mhm. ko war a gën a defaraat. waaw parce que léeg-léeg nga nit dara dina xew si si si dundam. Mhm. li tax mu xew. suñu borom moo koy jàngal ne hey. yeewut. yeewul. parce que nii nii ni nga taxawee nii si wàllu wér-gu-yaram ah. baaxul ni nga taxawee si wàllu jàng ak jàngale baaxul ni nga taxawee si wàllum toppatoo xale yi baaxul léegi nag yow lan nga war a def mooy nga gën a fagarlu parce que su suñ borom hmm. moom yërmandeem moo jiitu lépp waaw moom lu muy def rek yërmande da cee ne léegi nag yërmande rawut yow nga fexe ba gën a defar sa toogaay si wér-gu-yaram sa toogaay si parce que euh, sànq rek dama koy wax fii Mohamed état mm-hmm. principe bi njëkk bi lal état ah. mooy yemale yemale waaw waaw si foofu nag Tounkara dabu bu mën a de dafa am benn affaire wax dama ne bu ma ñëwee il faut ma wax comme gars yi si télé lañ nekk damay dégg fan yii yëpp ay nit ñu naan ay état bi jàppale na ñii maanaam benn groupe maanaam ñu ne ñii artistes yi lañ dañ leen di jox lii ñu ne ñii ay lii lañ dañ leen di dimbalee ci benn lii parce que liggéeyuñ defuñu dara wala affaire dafa dëgër ndax corona bi may fàttali benn affaire xaalisu Sénégal liir bi ba si màgget bi ñëpp a si bokk tolloo bu ñu mënul jox ñëpp rek war nañu jox ñiy bàyyi loolu moom il faut ñu bàyyi si xel fond boobu noonu ñu naan xawma ma fond wu lan la ñu jox kenn bàyyi sa moroom force Covid boobu. mu ngoog waaw mais euh, Mohamed euh, loolu mooy li loolu mooy lii gën. waaw mais loolu du am. parce que loolu mënul nekk xam nga euh, tey nga bugg ko nga bañ ko situation bu nekk dafa am doxalin bu muy laaj. te réalité tamit dafa am. Mm-hmm. tey ñun suñu état yi mënuñu def lépp. Ah. loolu benn la. Ah. ñaareel bi mooy ñëpp du ñu jotandoo mbir mi si même anam yi. parce que léeg réalité moom mooy dicter doxalin. yow di nga bëgg sax. Ah. mais léeg-léeg man man yi du fa. c'est man fi may waxee mooy xam nga sénégalais yëpp dañuy fay courant sénégalais yëpp dañuy fay ndox pourquoi fond bi nga xam te ne da nga koy jël nga am ñoo siy jox parce que ñoom seen liggéey dafa taxawane mais nga fayal sénégalais yëpp courant wala nga fayal leen ñoom ñëpp ndox wala ku nekk sa courant wala sa ndox ñu dindi la si temps de pourcentage moo gënoon ko man foofu laa d'accord maanaam ñun ñëpp dañ si war a tooloo daal aywa euh, loolu euh, xalaat la moom day wane rek euh, Mohamed Sarr moom ku gëm ne ndimbal. Mm. ak jàppandal ñëpp si ñëpp la war a yegg. loolu yàlla na ko su borom fay yéene boobu. Mm. sunu ay sunu ay téléspectateurs ñu nekk si àdduna bi yëpp ñoom ñëpp ñu leen di ñaanal jàmm ak xewal ndimbal ak yërmande te di leen dig daje ëllëg bu soobee yàlla wasalaam.